Euh, pour waxtaan ak euh, Union européenne ñun ñoo sàkk woon waxtaan wi parce que Union européenne dafa bokk ci partenaire u Sénégal yi du ñu yem ci ñoom rek dinañ seeti aussi yeneen partenaires yi Union africaine CEDEAO ak ñoom ñëpp pour wax leen vraiment euh, fi nga xam ne fi la situation bi toll muy situation boo xam ne bii kenn mësu koo gis ci Sénégal ñu dem conseil constitutionnel gis fa loo xam ne mosta am ñu indi nag ay firnde ñii dañu indi seen parenage ñu xool ko ci greffe conseil constitutionnel ñu bàyyi fa seen clé ñu ñëwaat ñu ne leen clé yi kenn mënu koo ubbi loolu juróom-ñeenti candidat seen kaala boo leen dajalee ñoom ñëpp juróom-ñeenti ji ku ci ne indi nga plus de cinquante mille parrain muy quatre cent cinquante mille daanaka sénégalais yoo xam ne naruñu wote parce que nee nañu gisuñu leen ci fichier ñii ñoom dañuy indi seen clé greffe conseil constitutionnel bindal leen nombre candidat ñoo dem di contrôler ñu ne leen région manqué na moo doon sumaka ak ñeneen ñoo xam ne ñii dañuy indi seen parrainage machine u conseil constitutionnel bi yokk ci lu ci bokkul waaye la ëpp nag la gën a doy aussi mooy ay tur yoo xam ne yi dafa méngoo ak lu ñu bind machine bi ne la tur yooyu amul kon muy loo xam ne lii kenn mësu koo gis depuis que le Sénégal est engagé ci ay élections loolu nag ñu bokk ko ñun ñëpp fi tey gis ngeen candidats yi fi taxaw yëpp pour vraiment xeex pour que sénégalais yooyu 900000 sénégalais yooyu bokk ci élections yi waaye ñun it ñu delloo ñu suñuy parrainage yoo xam ne yi dañ ko sàcc kon loolu dañu koy waxtaanee ak képp koo xam ne. xaritu Sénégal ga waxtaanee ko sénégalais yi bu ko defee ñu continuer suñu plan d'action bien sûr ñun ñëpp def nañu ay recours andi ay preuves ndax dañu yor ay carte d'identité yoo xam ne yii seeni borom ay sénégalais lañu yor ay numéro de carte d'électeur numéro d'identification nationale seen date d'expiration baax ñu dem ce conseil constitutionnel ba ñu ne teg yëpp de côté ne loolu baaxul kooku loolu kenn mënu koo nangu parce que agression la contre la démocratie sénégalaise loolu kenn mënu ko nangu kon gis ngeen ne 43 candidats yi dañu ànd doon benn ñu nar a continuer nag taxaw parce que lii bu continuer mënuñoo am élection yu transparente fii ci réew mi parce que le conseil constitutionnel def mooy ab mooy sélection ku la neex mu jàll ku la neexul nga yàq ay données dugg ci fiche ci ci fichier am yàq ay données bu ko defee nga ne ko yow mënoo bokk loolu kenn du ko nangu. kon ci loolu la ñu taxawee moom la ñu waxtaan si woon tey ak euh, vraiment ambassadeur Union européenne yi dinañ ci waxtaan ak ñeneen mais surtout dañ ciy waxtaan ak sénégalais yi dinañ mobiliser sénégalais yi pour que ñu dem ci élection yoo xam ne élection yu jaar yoon lañ lay doon. élection yoo xam ne da nga cee bëgg a seppi candidat yi seppi ci Ousmane Sonko ma nga xam ne maga nga ca kaso ba kooku kenn du ko nangu loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon waxtaanee tey ànd ceeg euh, voilà non ñoom dañ leen doon informer. ñoom laajuñ leen ñu régler ñu suñu problème loolu dafa war a leer aussi dañuy informer képp ku ñu war a informer parce que ñoom it dañu am rôle bu am solo ñoom ñoo jàppale woon le financement pour la vérification du fichier électoral seen xaalisu seen waa dëkk bokk na ci li nga xam ne moom la ñu defoon pour que ficier bi leer nañ ñëpp d'accordoon ci fichier bu leer tey problème numéro un des élections mooy le fichier kenn xamul ban fichier la est-ce que fichier 2017 la ñu jox ñenn ñi est-ce que ñeneen ñi fichier 2023 lañ leen jox ndax quand même euh, loo xam ne lii dañu yor carte d'identité wu électeurs yi ngeen naan newuñ ci fichier bi loolu kenn mësu ko gis kon Union européenne aussi war naa laaj gouvernement Sénégal xaalis bi nga xam ne defoon nañu ko ci fichier électoral bi waaw fan la jaar ba ñuy am ay discussion ci fichier parce que opposition ak pouvoir d'accordoon ñu consensus ci le bon fichier tey le problème de ces élections c'est un fichier boo xam ne kenn xamul lu mu doon kon ñun en tant que candidat yoo xam ne dañoo foqati suñuy parrainage dañoo sàcc suñuy parrainage li nga xam ne moom la ñuy laaj di ko exiger mooy ñu delloo suñu parrainage ñi nga xam ne dañ leen a génne ci fichier bi ñu delloo leen ñu indi fichier bu baax bi fichier wu 2023 ndax lañu xamut mooy aussi 2019 dañ joxoon fichier yi ay candidat dañu joxoon fichier bi ay candidat ñu dem vérifier fa ci suñu dossier bi jël nañ ay liste candidats yoo xam ne dañu ne non retrouvés dans le fichier ñu dem ci fichier bi nga xam ne moom la sena yor te ne commission électorale nationale indépendant nee na fichier boobu nekkul à waaye ñu jël rek dem vérifier ji ñooñu ña nga ca fichier Sénat donc om fi may wax ak yéen am na ci candidat yoo xam ne nee nañ seen fi seen i parrains ne pas identifiés waaye boo demee tàppe seen tour ci ci site Sénat ña fa waaw lii mooy ban façon élection lii mooy ban façon élection lii du ñu yóbbu ci lu baax. fa ñu jëm ndox amu fa kon la ñu taxaw mais de dellu gannaaw duñu ko def d'abord pour suñu bopp parce que am nañu droit wu nekk candidat lañ ñu laajoon def nañu ko indi parrainage yu baax ñu jël suñuy clé traficoté ko parce que loolay wax di porté nañu sax ñun ñëpp plainte contre X pour ñu xam ñan ñoo dugg ci suñu clé yi changer suñu ay données ñu yóbbu suñu ay maal def ci ay fiche ñu dindi ay région mais bu fekkee ne da nga ne région nekkul ubbil ubbil ubbil ubbil Mali nee nañu werante xuuxaan tekki tubéy la Mali yaa nga fa ubbi ñu vérifier donc loolu moo fi ne tentative de hold up loolu duñu ko nangu duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba fépp fu ñu war a dem nu fa dem lu nu war a defi dinañ ko def pour que vraiment élection yi jaar yoon ñi war a participer ñëpp participer y compris wax nañu ko ñi nga xam ne ñu ngi ñu ñu ngi ci kaso bi Ousmane Sonko y avait deux décisions de justice yu ne nañ ko jox parrainage mu dem di fay euh, fële ci caisse de dépôt et de consignation ñu ne duñ jël xaalisam waa loolu li muy indi ci élection ëllëg mooy bés boo bëggee dem élection ak bu munti doon moo xam municipal wala législative bu la maire dëkk ba ne doo am parrainage doo am extrait de naissance kon bu boobaa doo nekk candidat li xew nañu ko comprendre bu baax a baax a baax a baax donc administration wala kuy représenter administration à partir d'aujourd'hui bés bu ñuy dem élection këyit boo soxla moo xam casier judiciaire la moo xam extrait de naissance la kala ko war a jox bu ko neexee yow doo participer ci ay élection loolu nag du démocratie président Macky Sall bu ñu ko jaarale woon fii ñu muy jaarale candidat yi kon du yegg si fi mu yegg si bu ko président Ablaye Wade tëjoon ba ñu ko wooyee commissariat centrale kon du yegg si fi mu yegg si bu ñu ko tiiree woon au sort amaana sax du yegg si fii kon li ñu bëgg mooy tegaat démocratie bi ci yoon en tout cas ni ngeen ko gisee suñu groupe bi homogène taxaw lu le lu leen jaral jaral nañu ko pour que ñu teg élection yi ci yoon ñi war a participer participer sénégalais yi tànn librement ki nga xam ne moom lañ bëgg mu jiite jërëjëf. dañu ñëwoon Union européenne euh, ambassadeur yu bari ñëw teew ñu yëgal leen li xew Sénégal alors li Sénégal bi ñu ci waxee ak ñoom. comme ni ko Aminata Touré waxee ñëwuñu pour ñaan ñëwuñu pour saraxu dañu ñëwoon juste pour yëgal leen ñoom partenaire Sénégal muy Union européenne parce que France mu ngi fi woon Allemagne mu ngi fi woon Italie Luxembourg euh, Pologne ak yeneen nation européenne yoo xam ne dañu jël seen xaalis dugal ko ci biir fichier électoral bi ngir ñu càpparoon ko alors kaddu yi nga xam ne it man yëkkati naa ko la ma leen wax mooy ne ñoom Union européenne dara leeru leen ci Sénégal bii du benn yoon du ñaari yoon ñu ñëw wax leen ci waxu fichier électoral li am solo nag mooy ban fichier électoral moom la ñuy liggéeyee ban fichier électoral le conseil constitutionnel ban fichier électoral le sénégalais yi tey ji jàkkaar lool li wérte wóor mooy Macky Sall ak ñi mu àndal am nañu càmbar goo xam ne ñu ngi nekk di segg segg nañu ay candidat jëmuñu ci élection ab sélection la ñu nekk di def loolu problème yu ci nekk yëkkati nañ ko teg ko ci taabal ji kenn nag dong moo mën a dakkal lii parce que fi ñu jëm mooy ay prémices su chaos électoral maanaam président bi ñu na tafal dana doon koo xam ne kuy am jafe-jafe la ci wàllu légitimité élection boo xam ne dañu tànn ña cay dem élection boo xam ne ñu ëpp doole ci biir opposition bi dégg ngeen ko léegi wax nañu ko dañu leen ca beddi ñi nga xam ne ñooy les systèmes ñi woote ne système bii daf fi war a jóge booy xool ci réew mi daanaka ñaar la ñu koy incarné Ousmane Sonko ak ak Bougane ñooñu nattu noo bokk ci élection yi jàpp nañu ne li xew musiba la li xew gàcce la pour Sénégal li xew gàcce la pour bépp doom ci Sénégal boo xam ne si yéene moo doon Sénégal ñu continuer di ko tudd ci réew yi nga xam ne dañu yore taarixu démocratie réew yi nga xam ne dañu yàgg wane seen bopp ci taxawaay ci wàllu démocratie malheureusement Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom deltu ginnaaw la ñu gën a liggéey ci réew mi liberté démocratique yi bafoué nañ ko jël nañu nit ñi dugal leen ci kaso yi élection bi def nañu ko sélection léegi nag fi ñu jëm mooy daj dëpp daj dëpp googu du lenn lu may dugal réew mi ci musiba moo tax ñu koy interpeller moom Macky Sall Macky Sall amul droit indi kaw ci Sénégal Macky Sall amul droit indi jafe-jafe ci Sénégal buux nañu ko sës ko ci meeru wis bi ba mu ngi dem na dem mais bu muy jéem a suuxal Sénégal jéem a suuxal Sénégal mooy indi fi situation boo xam ne situation bu inédite la c'est pourquoi ñun ci collectif bi wax naa ko léegi euh, bokk naa ci ñi ci gën a ndaw wala bu ma bokkul ci ñi ci gën a ndaw mais maa ci ëpp expérience ci expérience ci expérience ci parrainage euh, lëbëj nañ ma 2019 lëbëj ma 2022 lëbëjaat ma 2023 mais li am solo mooy expérience boobu nga xam ne teg nañu ko ci table ji pour que kenn ku nekk mën a wax li nga xam ne moom nga dund teg ko ci table ji parce que bi ñu xayma toll na ci 900000 sénégalais yoo xam ne dañu leen considéré comme ay non électeurs ñooñu ñu considéré comme ay non électeurs ay sénégalais lañu yoo xam ne am nañu seen carte d'identité am nañu seen numéro d'électeur am nañu seen bureau de vote waaw cin faqul bënnul la fa newoon jógu fa c'est parce que am na fu mu jaar électeurs yooyu toll ci 900000 suñu taxawee ne Sénégal élection du fi am élection du fi am parce que amul force de l'ordre yu leen mën a téye bu ngeen fàttalikoo 2017 Touba ca Allié ba nit ñi jógee ne dañuy yàq bureau de vote ya 40 policiers ñoo fa nekkoon yàq nañu bureau de vote yi te mujjut kon il faut pas ñu pousser sénégalais yi ci kaw moo tax ñu ñëw union européenne ay partenaires Sénégal lañu waxtaan nañu ñoom wax nañ leen li ñu yaakaar wax nañ leen li ñu bëgg wax nañ leen informer leen ci musiba yi nga xam ne ay musiba naaru laay la te Macky Sall moo ko doxal moom ak administration bi nga xam ne c'est une administration couchée une administration partisane ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les sept sages waa conseil constitutionnel parce que lu jig njaag ñooma wax nañu également informaticien bi nga xam ne moom moo indi lëbëj gi coow li lépp moom la informaticien boobu également am na plainte boo xam ne collectif 43 candidats yi danañu ko def plainte contre x danañu bind tamit ki nga xam ne mooy ndeyu mbili gi parce que tey processus bi pour ñu dakkal ko xoolaat ko ci nu mu gën a gaawee pour que ñi war a bokk-bokk kenn dong moo ko mën a dogal c'est le président Macky Sall kooku ci boppam bind nañu ko danañu ko bind dana ko jot fi léegi waxtu yu néew wala ci fan yu néew lañu koy invité mooy lii nga xam ne musiba la gàcce Sénégal mu dakkal ko une bonne fois pour toutes je Union européenne lañ doon waxal dañu ni waxuñoo ak ambassadeurs yi fi nekk mais peuple Union européenne yi nga xam ni ñooy jël léegi léegi seen ay koppar di jàppale suñu réew yi ba diagnostiqué sax financé li nga xam ne mooy fichier électoral bi ñooñu lañ doon waxal tey jii nii également par solidarité. ci ñëpp ñi nga xam ni mooy leen 900000 yi nga xam ni ku ci nekk jël na parrainage am jox ko benn candidat. li xew nag am na ku ñu ni mais lu tax am ñu jàll te yéen jàllu leen mais ñun dañu bëgg a rester ci ay fait fait yi moom mooy bu fekkoon ni da nga dem ba sages yi recalé la wala ñuy recalé la ci la nga xamante ni alors jàpp nga ni lii lu jaar yoon la danga nga koy nangu boobaa mais xam nga boo jëlee nga am say équipe informatique nga càmbar fichier bi. man liggéey naa ak euh, ñaar fukki at ak banque mondiale ci wàllu système d'information de gestion mais li ma leen wax mooy logiciel bi amul sincérité mënul assurer intégralité des données munul assurer également fiabilité des données parce que dafa bëri ay cas yi nga xamante ne tey boo leen seetee ci personnes yi nga xam ne moom la ñu recalé dañ naan la du ñu ay électeurs ku mel ne Mary Teuw Niane mi nga xam ne Dakar Bangu lay wootee mais bu fichier bi ñëwee nga ni kooku du électeur ça veut que fichier boobu problème mu sincérité données am na ko problème mu exhaustivité maanaam données yi nga xam ne yu wóor la léegi nag ñun li ñu leen wax mooy on n'est pas venu là pour bu demander des faveurs parce que suñu dëkk la ñu nekk te dafa mel ne ñetti cas am na kaaw Karim Wade kaaw Khalifa Sall ak kaaw Ousmane Sonko mu nekk une volonté manifeste d'écarter des gens tey jii nag loterie pour am ay candidats loolu Sénégal dafa ruslu dafa gàccewu parce que ñëpp xam nañu sax booy loterie da nga koy def ci ay boules pour éliminer les biais pour éliminer lépp la nga xam ne dana créer traitement bu yemul diggante ay candidats mais ñëpp xam nañu ni ku mujj ci gannaaw ku mel ne Aïssatou Mbodj daanaka doublon moom moo koy moom moo moom moo ciy bëre ak ñi nga xamante ne tey dañ leen génnee ci fichier bi. li ñu wax tamit moom mooy ñu continuer à sa battre effectivement pour ñooñu commencé nañu d'ailleurs di configurer sax combat bi ci biir région yi nga xamante ni ñi représenté candidats yi ci cinq ville sénégalaises yi wala région yi ñoom tamit daañu daje pour que lii ñu mën ko xeex ba nga xamante ni. logiciel bu ñuy utiliser nte nga xamante ni algorithme la daañu wax candidat yëpp ni logiciel bi nii lay liggéeyee bu ko defee résultat yi muy joxe comme li ñuy wax en informatique garbage in garbage out li nga dugal ci biir loolu moom mooy génn mais dugal ci biir la nga xamante ni daanaka daf lay indil ay excès de parrain wala mu indil la say parrain ñu wàññi ko wala mu indil la le fait que parrain yi ñu lay wax ni baaxul yow boo ko toppee da ngay xam ni ñooñu ay ay ay ñoo ngeeg seen carte électeur et puis ay parrain lañu donc je pense que tey combat bi ça ne fait ci droit lañ ko teg ci euh, loi wu Sénégal lañ ko teg ci bëgg démocratie ci bëgg également une élection inclusive et transparente je vous remercie. SeneInfo International. International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ay xibaar yu wér wóor